asalaamaaleykum wa rahmatulah Touba ca kanam Nourou Darayni ñu ngi leen nuyu baax a baax di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora tey nag ñu jàkkaarloog euh, soxna maam Issa Mbacke nga xam ne ñëpp xam nañ ko si ahlu café di jàmbaaru Serigne Massamba di jàmba di jàmba di jàmbaaru Cheikhul Khadim di liggéey liggéey bu am solo liggéey bu am solo solo ci ci liggéey bi euh, soxna soxna maam Issa ñu ngi lay nuyu baax Mbacke Balla. Ah, ñu ngi lay fay bu baax. soxna si ñu la doon laaj euh, noo gisee bis bi nga xam ne dañ ko jag dañ dañ ko jagleel euh, soxna yi Touba ci kanam fii si sees ah, ginnaaw bu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di santaat sunu yaakaar tey ak ëllëg di yeesalaat baax sunu bu baax ci teewaay bi nga xam ni teewaayu jaamu yàlla la di teewaay dundal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy bis bu màgg bu tedd bis boo xam ne mbégte la mbégte umag islamique yëpp la rawatina jigéen ñi ndax suñ demee ba jigéen ñi maam jaara yi jagleel leen lu toll ni bisu Touba ci kanam fii ci Ndakaaru waa Ndakaaru gépp teef ak waa Touba ak région yi fu ne waaye jóge fa ñëw xam nañ bu sa la liggéey bu maam jaara moom la waa Touba ci kanam di dekkaaloon rek la woon ca mag ña rek moo ñëwaat tey ku fi teew xam ne sëñ Touba amul morom euh, soxna si dañoo gis euh, jotaay jotaay jotaay yu mel ni su amee nga am taxawaay yu am solo xam ne danga koy taxaw jëm ci wàllu café Touba gi ñu gis ni Touba kanam tey bisam bii mu waajal bisam bi nga xam ne tey mooy le 12 juin fii ñu koy defee CCS ñu gis soxna si nga teel a jaayante ngir lépp luy kafe képp ku ko jëfandikoo fii ci bërëb bi si yow la jógee soxna si loolu jëf joojo Mbacke. waaw sëñ bi jërëjëf ci laaj boobu loolu moom moo ma war ndax man. comme man jaam jaamatu Serigne Touba la buy liggéeyal Serigne tubaa ci café Touba gi ndax jàng xasida ak naan café bu mbokk ci mandargam yoonu murit te Serigne Touba bi muy ñëmbi si ci géej gi café rek la fi indi dafa gis lépp seexlu ko gis fa café mu sell suñu borom jox ko mu indil ko jaam ñi suñu amee mbégte café Touba la ñuy naan buñu amee naqar café Touba moo ñuy dalal suñu suñu suñu suñu feebaree café Touba moo ñuy faj mu doon liggéey boo xam dama koo ànd ak waa kër jàppale ci yoonu murit ak taraxa gu mu doon te ma yëg ko dinaa ñëw tàngal kafe bi def ko addi Serigne Touba waaye nag mbooloo mi moom dama cee bokk dama cee bokk ñii waa Touba Serigne Modou Abib Mbacke mi ko jiite boole ma ci soxna Bintu mi sunu bàjjan boole ñu ci ñu ànd ak ñoom liggéey bi may jël ay carte di ko jaay di participer ni ñëpp waaye ndaje mañ njëkk a def ma leen indil café bañ ko dalee def ba léegi amul fenn fa ñuy nekk te woowu ñu ma dama tàngalal café indi ma def ko addi Serigne Touba moo tax tey bis bi di ñëwee eh, tey di bisub jigéen ñi doon bis boo xam ne tey lañ ko mas a am fii Ndakaaru ma ne dinaa fi def loo xam ne tey laa ko mas a def fii Ndakaaru ndax yaakaar naa liñ fi indi ci personnel bi war a séddale café gi rek cent quarante personnes la yoo xam ne ñoo war a séddale café gi sans compter ñi ma àndal liñ fi indi ci café ak ak saako suukar rek kenn xamut nu mu toll te loolu mën naa ne bu la tey ko mas a def fii ci Ndakaaru ndax tey lañ mës am bis bi ci Ndakaar te bis bi suñu bis la bisub Serigne Touba la te kafe kafe Serigne Touba te man taalibe Serigne Touba laa. sono si lan ngay wax mbokku taalibe yi rawatina soxna yi ngir ñu ñëw tabbi ci liggéey Touba ci kanam gi. xanaa ñu lépp lu am ñu indi ko lu ñu ñu jéem ko nañ génn takkaay yi jaayi kër lépp lu am ci ay bien génn compte banque yi def ko ci liggéeyu Serigne Touba ndax saan wuy dem di dikk moom dafa da koy multiplier kon dafa mat a baril te yaakaar naa wedd gis bokku ca te lu ni fàng kenn du ko jeex ndax jigéen ñi ci di def diggante bañ ko yëkkatee ba léegi gis na ci seen bopp bu baax a baax te Touba Gueye képp fa teew xam ne tey jii Touba kanam li tax nit ñi sawar buñ laajee ñu di leen jox li ñuy def dañ cee teg seen bët ni ma la ko waxee lu ni fàng kenn du ko jeex képp ku dugg Touba di nga gis seen liggéey mu ni fàng kon kay jërëtul ñuy soññ kenn ku dugg Touba rek yaay soññ sa jërëjëf Mbacke kon kon xam naa euh, di fàttali mbokk taalibe rek tey ñu ngi ñu ngi doon ñu ngi doon ñu ngi doon wax ak euh, soxna maa Isa Mbacke mi nga xam ne mooy euh, mooy ahlu kafe sono su baas yi nga xam ne léppam sëriñ Touba la sono su baas yi nga xam ne léppam sëñ Massamba la sono su yi nga xam ne fépp mbooloo sëriñ Touba teew mi ngi fa di séddi la café ba génn bitim réew sono si nga xam ne ku gis jëmmam ji royukaay la sono si nga xam ne maamam soxna jaarale liggéeyal guddee bëccëg suba ngoon Mbacke Balla sa sa taxawaay rafet na ñu ngi leen ñaan nga yàgg fi Mbacke te ànd ak wér ndeysaan soxna si kii mooy soxna maam Issa Mbacke jërëjëf